Ben royukaay dama seet si ben, ben exemple dama seet sama ben frère ñu gën ko xam ci Pape alignan ben référence ci walu bi mu nekk ci liguey bi mu nekk manam walu journalisme. alors li tax nak ma dafa bari d'abord c'est un grand frère muy nit ko xamanteni dama ko xam ay ati ati at mom ci gannaaw yàgg suivre li liguey liggéey suivre li def.

té ñom sénégalais comme sommes ñuy nit comme donc war leen taxawoo taxawaay bu rafet waaw donte ni xëy ñaawlu quelque part ci police xëy comportement bi ñu doon am par rapport ak bi fa mais yooyu yëpp c'est pas important li am solo Sénégal xeex bi muy leneen def appel Sénégal jàmm la soxla am kilifa du place ku ci melni ni Pape tay Niang bi mu amal Sénégal njëriñ bi mu amal réew mi ak démocratie ñun sommes en 2021 fi mu tollu nga jël ku melni pap Pape tek ko fi du lu jekk du lu rafet parce que nak bo nekkee nitu deug ma fàttali ne man musuma politique musuma sol t-shirt ben politicien musuma taxaw ci jotaayu politique donte ni comme tout sénégalais kuy suivre la kuy xol la kuy bàyyi xel la te taxaw ci benn marche wax dëgg yàlla waaye xam bi ma xam Pape Alé Niang ku ko xamul di nga jàpp ni day def ay calcul xaw ma ni ko nit ñi di c'est faux c'est totalement faux Pape Alé fait partie des journalistes les plus constants de ce pays man dama cee xam dara Vieux Sanjiri Diop bi doon ànd ak Idrissa Seck bañ ko jàppee Saint-Louis ca jamonoy Ablaye papa alenya talena otom Dakar dem bandar setiko man motax tax vieux job Diop maa yobul daan ci prison ndarba lolu di combat wu alenya le 23 juin biñuy wax mu wacc genn ci rédaction bi wacc di xéxal réewam kon nak tay su gisee yenen pratique il reste constant ci doxalinam ba tax mu genn wax man comme beaucoup de sénégalais li ma doon xaar mooy li Pape Alé wax dëgg la wala du dëgg ñun réaction yooyu moom la ñuy xaar mooy ñun sénégalais yi toog xipp suñuy bët di xool ka fa mu ko jëlee loolu ñoom nañ ko lijjanti après waaye li ñu gën a yitteel te gën ñu soxal nga xamante ni sénégalais yi tey loolu la ñu soxla xam loolu lañu soxla dégg loolu lañu soxla am lu leer mooy Pape Alé Niang li mu wax am na. wala amul ñamu dut baramu tuma nañu nous ne li pap aleña wax kat ay lay amul ñu xam wala alors les responsabilités nous situé ko mais je pense que Sénégal lool que soxla mais quand tu as fait ko d'accord euh, et ça nous intéresse pas amna amul mom le sénégalais yi di parce que gis nga que ñu dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko limi muy ci réew mi bari na sénégalais yi ñu ngi il y a des choses beaucoup plus importantes ñu war ko lijeenti lijjantiwuñu ko on n'a pas ce temps l'atmosphère de du du pays est polluée atmosphère bi yàqu ciow li bari na kilifa yaa ngi werante nit ñaa ngi xuloo nit ñaa ngi werante ndax histoire lan ñaari nit mais loolu soxlawul won li yëpp soxlawul woon li vous voyez mais loolu noonu nañ ko lijjanti de jiiñaate wax dëgg yàlla na ñëw taxaw indi preuve yu ne man kat lii ma wax fii laa ko muy amul Ousmane Sonko amul Paté, amul la justice de ce pays va trancher mais bu fekkee ne amul preuve ca la wax day yomb su tout Sénégalais est en danger daf ma coow lu dul jeex mënoo teg ci table bi dara tamit nañ leen waxante dëgg mais dafa wara a jeex parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ te kenn ku ci nekk réew am nga fi cër ngir defar mais à partir de ce moment kenn talatul dara kenn liggéeyatul dara kenn lijjanteetul dara ndax lu jël ci ñaari nit dem ba indi fi problème yim fi indi ni yëpp mais ba kañ la dem ci loolu ba kañ la dem ci loolu je euh, réitère tout mon soutien et mon respect à l'endroit de ce journaliste exemplaire royukaay bi ci réew mi di Pape Alé Niang di def liggéey bu ama ama am solo Sénégal dafa war a soppeeku et à tous les niveaux Sénégal dafa war a soppi ni muy doxe et à tous les niveau démocratie bi ñu renforcer ko am na yoo xamante ne waratul am fii ñu toll ñu ne déetawaay yenn poste de responsabilité kuñ fa teg nga jël réew mi teg ko sa kanam ñëpp lañ ci yemale par parlo dañuy jël par parlo tek ko feulé di dox ci dëgg di protéger sénégalais yi boo France le président de la République il te dit moi je défends les intérêts des Français bo démé États-Unis le président des Américains il te dit que moi je défends l'intérêt des Américains Sénégal fofu la wara tollu donc loolu combat wu ñëpp la wara a doon tout le monde est interpellé à partir de ce moment ñing koy ñaanal jam, ndax nak comme ni ko waxé légui dugg boo gis leneen a ci topp muy génn génn moom dana am ala kuli alin génnee nii wala génnee nii rek waaye génn moom dana am yàlla na génn ci jàmm sain et sauf en tout cas ci làmminam mi ngi remercier administration pénitentiaire ci taxawaay bu rafet bi keneen ku mu mën a doon nag buñ la dénkatee mbir rafetal ko sellal ko te xam ni amul lu dul jeex maintenant samay wax fa ma ko tëjee mooy la Pape Alé ñaa wax nan ñu lijjantil véracité loolu am na wala amul té ba dama déggagul ñu weddi wala ñu dëggal té loolu la sénégalais yi soxla parce que nak ñun Sénégal bari na ñu melni man ay observateurs yo xamanteni wax dëgg fa neex yalla looloo leen itteel té ñi ngi suivre dossier yi nak ndax ci réew mi lañu dëkk doomi réew mi nak ñi ngi xol dossier yi benn par benn nañ leen dox ci dëgg and ci dëgg ngir réew mi mëna woy ci dëgg et su boobaa ça sera l'intérêt de tout sénégalais et de tout boox ak fo mëna doon loolu fa la réew mi tollu fa la jamono tollu nous avons koy ñaanal nous di ko ñaanal wa Sénégal di le président de la République son excellence monsieur le président Macky Sall ne siffler pour de bon la fin de cette récréation là. parce que finalement toute récréation mais mi ngi polluer atmosphère Sénégal xol yépp a ngi naqari laal na pos ya laal na se parce que les gens ne sont pas vraiment nit ñi nekatuñu ndax problème ñaari nit mais coow li dafa wara jeex merci infiniment suñu frère Pape Alé ñu ngi koy ñaanal jamm ñaanal ko mu génn ci jamm ak salam et nous l'encourageons té ñu ngi koy soutenir ñu ngi ci gannaaw